comme sama gars yi j'espère que vous allez bien président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw bi mu jógee wax na ni am na fa ay nit ñoo xam ne nangu nañoo ñëw Sénégal ngir investir suqali suñu économie waaye nag toftal na ci wax ak politiciens yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di yee fitna te mu woon leen balaa campagne bi tàmbali na képp ku ci laale mbaa nga jege ci yoon dina def liggéeyam ak parti boo bokk moom président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye wax na ci ñi nga xam ne dañ leen a joxoon contrat ngir ñu suppar ñu ndoxum géej gi ba mu nekk ndox mees mën a naan contra boobu dinañ ko càmbaraat ndax daa am ay luubal yoo ci am wàllu politique Pastef fu ñu jaar mbooloo mu takkoo leen di dar terewut révélation yeeg xeer yi di jooru ci kaw opposition bi Ousmane Sonko ca Casamance la ni apprenti politicien yi jël ayu Casamance wii di ko politiquer nañ ko wacc ndax li ñuy def dangereux na lool politiciens yi tontu nañ ko waaye balaa boobu waa MFDC ñoom dañ ne dañoo sonn ci situation bi ñu nekk ndax jàmm daa amut guerre amut ñu nekk ci diggante bi Euh, Yérim sekk dal ne moom la Ousmane Sonko di waale pour bëgg ko yóbbu kaso moom pare na pour dem Amadou Ba daal ne euh, ñi fi nekk dañoo wax ba jot ci réew mi léegi nag jot nañu liggéey ndax bi ñu fi nekkeek léegi néeg sax inauguré wuñ ko fi moom Amadou Ba dal ne toog muy dox moo gën wax muy dox Amadou ñun day wax a yor suñu kër. Massaly daal ne juróom-ñaari weer yii fi nekk Diomaye ak Sonko réew mi dafa nekk à ñooñu Macky Sall ya dañoo demoon ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général des Mourides ngir kalaame ji Jomaay ak Sonko waaw euh, ki nga xam ne moom moo di Ismaïla Madior Fall moom nee na yoon dafa laq fu yàq yeggut président Macky Sall ndax irresponsabilité moom président Macky Sall nee na mboolem commune fu ñu koy baatarale campagne ña fa ne dina leen dimbalee ku nekk yaari million coowal mille milliards yi ba tey mu ngi dox ci diggante Abdoul Mbaw ak yenn intellectuels yi ndax mënaguñu koo digérer nii la demee ci réew waa ju ñuy wax Baltazar ndakate moo raw PDD kooku tëddee na dëkk ba yëpp